président Abdou Diouf. Mhm. bi mu faloo ci discours am bu njëkk. Mhm. dafa ne le chômage des diplômés est un scandale. ce sont mhm. les mots du président Abdou Diouf. effectivement politique emploi yi fi jaar bu ñu ci cité ñaar rek magasin témoin c'est-à-dire nit ñi amuñu xëy ñu ne nañ leen ubbili bitik. financé leen bitik. defe naa ba léegi mu ngi am. ndax ci ñi nga financé am na ñoo xam ne commerce la ñuy def donc modèle bi mu ngi fi ba léegi beneen bi nga xam ne nii ci histoire c'est fondateur de mooy opération maîtrisard. dëgg la 83 ku ne xam na ni mu mujjee. Mhm. te ña leboon ci jamono jooju. Mhm. ñooy gérer tey emploi ndaw yi. ñooñu la ñu financé woon jamono jooju ñu def fayit ci li ngay def nii lan moo ci différent ak politique emplois yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jaar ak laaj bu njëkk mooy est-ce que yow liir nga capitalisation ci politique yi fi jaar yépp mhm. ba xam fi ñu lajjee. ak lan nga war a wutalee ak yooyu parce que mel nañ ci yoon yooyu la ñuy jaar ba léegi. waaw mun naa wax ni euh, man mbokk si euh, li ma mën def te maa ngi aussi euh, tàmbali si loolu di jégalu parce que en général ñu bëri ñu may critiquer dégg naa keroog waa TFM naan waa ji buy wax rek je je je je daanaka déformation professionnelle ak fi ma jàng ak li ma doon liggéey nga xamante ne. Euh, jeu bi mooy maanaam si li soxna si waxoon mooy aay bi moo tax bu ma nee jeu waxuma man mais ñu may liggéeyal euh, DER bi buñ ko euh, tàmbalee 2018 ak léegi balaa ñoo commencé financement yi dañoo toog 6 mois def lu ñuy wax planification stratégique maanaam xool li nga xamante ne Sénégal taxawal na ko fukki at yu passé si secteur emploi lii di ANEJ lii di AGEB lii di OFEJBAN lii di FNPJ ANAMA ak yeneen agence yi nga xamante ne yëpp taxawal nañ ko daanaka sax euh, opération maîtrisard yi nga wax mun naa ne fekkewu ma ko ndax boobu maa ngi am deux ans euh, mais xool nañu capitalisation bi lan moo tax mu réussir ak lan moo tax mu échoué bu ñu paree loolu ñu ñëw ñu def enquête nationale bi nga xamante ne man sama bopp maa ko jiite woon sax mooy li ñuy waxoon rebasage du PIB maanaam saytu suñu économie bi ñu def tour Sénégal bi pendant deux ans euh, deux mille entre deux mille seize ba deux mille dix pour gis ne population Sénégal entrepreneuriat moo ko tax a jóg entrepreneuriat góorgóorlu secteur informel mu ngi si lu toll quatre vingt pour cent suñu économie Banque mondiale nee na presque PIB Sénégal. 60 pour cent secteur informel la jóge ñu ne pour saafaral loolu dañuy wut ay solution pour formaliser davantage économie bi pour euh, jàppale nit ñi ñu am xëy ñu formaliser leen jox leen registre de commerce ni ne yaa accompagner leen ñu mën a créer seen entreprise du si commerce parce que mun naa ne ñun commerce lu ñu ci def motul sax 10 pour cent parce que euh, ñoo ko dindi euh, parce que xalaat nañ ni du yokk koom-koom réew mi wala valeur ajoutée bi ñu insister si lépp lu dem si artisanat mooy tailleurs yi cordonniers yi mécaniciens yi menuisiers yi euh, lu ñuy wax force vive de la nation beneen bi bi yoo xamante ne moo jël 70 pour cent ressources yi agriculture agriculture dem nañu si maraichage dem nañu si grande culture ceeb bi ñebbe bi dugub bi et cetera et cetera élevage embouche ovine bovine caprine porcine boo xoolee si deux années yi ñu mujjee dugal nañu toll soixante milliards ak lu tegu te impacté nañu lu toll cent mille bénéficiaires et plus. est-ce que mën nañu taxaw foofu parce que soixante milliards yi dama bëgg aussi mu leer. Mhm. xam nga suñu xaalis la. bu baax. ñun mënuñoo doyloo nga ne ñu séddale nañu wala joxe nañu soixante milliards parce que bu dee joxe rek la yóbbu ko ci jàkka ja dinañ ko joxe. te xëy na dana am maandu te dinañ ci ragal yàlla ñëpp danañ ci jot vraiment wala ci mbootaay yi bu ñu ko fa joxee ne séddiw leen ko joxe leen ko ñii ñu ko war a jot dinañ ci jot li ñu ci njortoon mooy faj soxlay ñàkk